17h. asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru takkusaan si li ci nar a gën a fës. bokk na ci li ci nar a gën a fës ni ku bésu tey ji téeméer ak juróom-benn daal di am bees la nga xamante ne moom mooy mbas mi fukki ak ñaar doon transmission communautaire loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi. ca booba jamono jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub wërgu yaram moo ngi sàkku mboole semm askan wi ñu daal di sumbub seen loxo ngir rek daal di fexe xeex lépp lu nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub mbas mi la mbas moo mee sax gis nañ ne moom nag moo ngi ñëw toog fii ci ndakaaru ndaxte gis nañ ne téeméeri pàcc ñeent pàcc yoo jël ñett yëpp ngi fii ci ndakaaru ba tax rek mu daal di fësal ëlëm tàngeem ci fànn boobu la di sàkku askan wi ñu daal di ci sumbub seen loxo loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi yooyee kàddu nga xamante ne kii di Abdoulaye Diouf Sarr daal dina ko yëkkat dafa yéex te ñëwut waxtu bi nga xamante ne moom lañ ko doon xaare ndaxte loolee nag doon na la nga xamante ne dafa yéex ki ko xam xamle di xam-xamam màcc ci wàllu communication dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi moom sax mooy doon ganu xibaari gulet foofee ca Kaffrine ñoom itam ñu am seen kaa njëkk lu jëm ci wàllu mbas mi moom moo ngi am foofee ca Koungheul tax na rek ak nga xamante ne moom mooy jaraafu dëkk ba daal di ci àddu dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi la nga xamante ne moom mooy mbas mi ak xeex wuñ koy xeex tax na ñu daal di nemmeeku ay accident yu bari rawatina ci gune yi ñii bu fekkante ne dañuy naan li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu eau de javel yi ñeneen am ay jafe-jafe ci pour jëfandikoo garab yooyu ba tax rek ñu daal di ci yëkkati ay kàddu rawatina ña nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wilu mel ngir rek nit ñi gën a bàyyi xel gune yooyee ci biir kër yi dinañ ci ñëw ci yàttalu xibaar yi li ne mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat te kan tënku leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala bëgg ngeen leble fi bor Alassane Wade moo féete ci xarale Sud Birama Ndiaye. gaawu fanweeri fan ci weeru mai atum ñaari junni ak ñaar fukk mbokk yee ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5. ci wàllu xarala gi Alassane Wade moo fa féete ñu leen ko waxee ci ndoxte la bésu tey jii lu tollu ci téeméer ak juróom-benn ñoo daal di am bees li la ci mbas mi. juróom-ñeent fukki ak ñeent yi doon ka kon ka suivi ñeneen ñi nag doon ya nga xamante ne moom mooy euh, fukk ak ñaar ya nga xamante ne kenn ci ñoom xamul fan la jëlee wopp sile ñaar yi ñoo ngi ko gisee ci Parcelles Assainies ñaari ca Cambérène benn ca Colobane benn ca Liberté 3 benn ca Guédiawaye benn ca Hann Bel-Air benn ca Nord Foire benn ca Sicap Amitié benn ca Koungheul nekk ca Kaffrine benn ca Touba loolu itam toll na ci fukk ak ñeent ya nga xamante ne fi mu ne nii ñoo ngi leen di rawale ñu duppe leen lii di cas grave ni bésu tey ji itam lu toll ci ñaar fukk ak ñett ñoom ñoo daal di wër ci bésu yàlla tey ji nga xamante ne mbas mi dugg na fi ba léegi Sénégal daal dina am lu toll ci ñetti junni ak juróomi téeméer yu toftal fanweer ak juróomi cas doo tax sax ci lim boobee junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn yi doon fi mu ne nii lu ñuy faj ci kër nit ak ñaar doon ña nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bàkkan na xayma bi buñ ko seetloo ña nga xamante ne ñoo am mbas fii ci Sénégal gis nañ ne nag boo ko xaajee ñeenti pàcc ñett yépp ñoo ngi yeewoo fii ci ndakaaru jëwriñ gi ñu denk lépp lu jëm ci wàll wér-gu-yaram moom moo ko daal di xamle di sàkku ne jàpp ne nag fi mu ne nii amatul lenn lu ñu war a tendefal ci xeex boobee ba tax muy sàkku ci mboole mboolese askan wi ñu daal di ci sumbub seen loxo ñu teewlu ko moom Abdoulaye Diouf Sarr bu baax situation tey bi si téeméer ak juróom benn cas yi ñu am tey juróom ñett fukk yi ak ñeent yi ñu ngi fii si région de Dakar si fukk ak ñaari cas communautaire yi ñu am fukk yi ñu ngi si région de Dakar lim boobu nag xamante ne li ëpp si li ñu déclaré Dakar lañ nekk bu ngeen ko seetloo semaine yi passé yëpp loolu la am lool day wane ne nag feebar bi fii si Dakar la gën a nekk ñeent yoo jël ñett yi Dakar la nekk bon ñu war a taxaw si ñetti junni ak euh, ñeenti téeméer ak euh, ñaar fukk ak juróom ñeent kaa yi xamante ne jël nañ ko le 29 ñaari junni yi ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom yi fii si Ndakaaru lañ nekk boo ko xaymee junne bu nekk daal ñaar fukk yu nekk mën nañu wax ne juróom ñaar fukk yi ak ñett yi Dakar la nekk bon ndëkk mbir mi mooy que ne fii si ndakaaru dañu war a am taxawaay boo xamante ne taxawaay bu wér la parce que jàngoro bi law na fi bu baax a baax te bu ñu taxawul dana faagagal ñu bëri fii si Dakar moo tax ma wax comité national de gestion des épidémies ñu xamante ne si réew mi yépp ñoom ñoo ñuy xelal si mbir mi joxe orientation ñu lëkkaloo ak comité régional bi xamante ne ñoom ñoo yor mbiru Dakar pour euh, nu mu gën a gaawee ñu taxaw xool lan lañu ñu war a mën a taxawaay taxawaay bu gees bu gën a tar pour arrêter feebar bi fii si Dakar parce que situation Dakar nekk na situation bu particulière may wax na nag bu ñu lënkaloo ñun ñëpp boole suñu doole danañu gagné effectivement Covid 19 bi mais bu ñu caaxaanee Dakar yaakaar naa ne feebar bi mën a taxawee si réew mi noo xamante ne dana faagagal lu bëree bëree bëri may wax ne nañu lënkaloo pour gañee Covid 19 mais fii su Ndakaaru bu ñu caaxaan parce que mi ngi law law boo xamante ne mën na fi faagagal ñu bëri. yooye kàddu nag dafa doon ya nga xamante ne dafa yéex nekkul jamono bi ñu ko doon xaare waroon na gën a teel noonu kii ko xamle di xam-xamam màcc ci wàllu communication jàpp ne nag dogal yi nga xamante ne nguurub Sénégal da koo jël ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu mbas mi la amut ci benn njëriñ ñu teewlu ko moom alkaali Diouf la yoo ñu teewlu ko ak mare Ndeye Marème ñi nga xamee ne ñoom nañu fal ci réew mi pour ñu aar population yi ci mbirum corona bi man dama defe ne Euh, ne dañu tardé. Euh, li tax ñu tardé. mooy ki nga xamee ne mooy moom nañu teg ci ministère mi nga xamee ne moom moo yore affaire u santé yooyu. ñoom ci seen wàllu bopp suñu feebaree dañuy dem ci docteurs yi ci médecins yi ñu faj leen. donc lu mel nii su amee amoon na fi ci euh, ci kar ci ginnaaw boobu ministre bi ñuy tuddee Eva Marie Coll moo fa ne woon moom moo yegoon affaire u Ebola bi. mu toppatoo ko bi ba ñu tëjoon frontière diggante Sénégal ak Guinée lu mel nii su amee euh, boo xamee ne mun na indi musiba euh, war nañu mën a ëlbati affaire bi mu jéem a xool ci xam-xamam nan la ñuy jóge ci affaire bi parce que yeneen dëkk yi yeneen réew yi ku ci nekk yaa ngi def sa mën-mën ba ñoom ñu ngi ciy commencé di ci génn ndànk-ndànk di ci génn ndànk-ndànk moom alkaali Diouf mooy doon suñu gànnu xibaar wàññi gi ñu wàññi lépp lu jëm ci wàllu tengal gi ñu doon tengal lii di mesures yi loolee warta tax nit ñi daal di bàyyi seen loxo tey la ñu war a gën a fàbbu gën a taxaw ngi rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllub mbas mi mu génn ci mim réew yooyee kàddu kii di Alxasan Sall nekk gouverneur bu Ndakaaru moom moo ko daal di yëkki ginnaaw bu muy ànd ak euh, amal benn tukki nemmeeku foofee ca Tëngéej te jàpp nañ ne sax moom moo jiite lépp lu jëm ci wàllub comité buy xeex mbas mi fii ci Ndakaaru ñu teewlu ko ak dénisation pour wax leen ñu bëggoon leen xamal ni tey nag la ñu war a gën a mën a taxaw pour xeex mbir mi ñu bañ a bàyyeeku li ñuy wax euh, bàyyi seen bopp. bàyyi bàyyi masque yi. distance yi daw ci ñu respecté donc bref. lépp lu nga xam ni lu personnel de santé digle la tey lañ ko war a mën a gën a respecté te dañu bëgg ñi nga xam ni tey comité bi organisé woon na ko quartier bu nekk mu am fa benn cellule ñu bëgg cellule yooyu ñoom ñu jël xeex bi ñu teg ko ci seen loxo ñuy dugg kër par kër di dem roq par roq fu ñu mën di dem ñu wax ak nit ñi wax askan noonu rek la ñu mën a gagné combat bi te gëm naa ni dynamisme yi nga xam ni gis naa ko ci Rufisque sous la direction du préfet bu dakkul léegi kenn dootul waxati coronavirus fii ci département de Rufisque et au delà kenn du ko waxati ci région bu Dakar kon nag nañ ñëpp taxaw ñu continuer la mobilisation wax ak askan bi ñu respecter les gestes barrières bu ko defee ñu daan corona. ñu daan corona ñeneen ñu koy jéem a galgal itam foofe ca Kaffrine la ñooñu ndam gis nañ ne benn commerçant ba nga xamante ne di jaay ndugg moom la ñu jàpp ne dafa am la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub uh, corona boobee ki ko xamle di meeru Kaffrine moom nag jàpp na ne loole faw nit ñi daal di ci ànd ak dal ak tey gën a fàbbu ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllub mbas mi foofee ñu ko gis ci wàllub Koungheul laata muy gën a law Abdoulaye Wilane lay wuyoo ñu teewlu koog Babacar Samb. mel na ni Koungheul ci biir région Kaffrine gis nañ fa kenn koo xam ne opérateur économique la day yëngatu ci njënd ak njaay ci marché Koungheul dëkk ci dëkk Koungheul bi daan na jëflanteeg ay nit ñoo xam ne nii wala di demlanteeg ñoo xam ne nii ñu ngi dëkk ci gox boo xam ne nii umpul kenn ne foofa transmission communautaire am na fa waaye daal li am ba des mooy ñun ñëpp li ñu war mooy mooy dal ànd ak sago teey ba noppi ñëpp ñëpp yebu ci di takk masque di moytu dandante ak jaxasoo bi la ko def nag li ñu war a def ña ko war a def daañu ko def ba ma mat sëkk xam naa ne ginnaaw gouverneur de région mi nga xam ne feeki simili dina ko ak ñuy waxtaan sukkandiku ci xalaat ak gis-gis ak jàngat ak digal ñu ko docteur yi jox ak ñi yore karange naka noonu ci tuur ci ginnaaw préfet bu am ànd ko maire bu ministre Mayacine Camara député yi fa nekk dinañ jël seen matuwaay te la leen war lii ñu am cas bu njëkk ci région Kaffrine te mu jóge ko ci commune Koungheul ñun ñëpp waxtu mooy ban waxtu ñëpp xam nañ ne ñu ngi waajal dooraat njàng mi loolu it ah, day niroog ak soññ ak dànkaafu pour que la fileeg ñuy ubbee xool yooyu ñu jël gën a taxaw ci matuwaay yi ñu war a jël yëpp waaye ànd koog dal su ko defee li ci des mooy dañ noo ne bu ndox tuuroo ànd baka des déedéet bu ndox tuuroo rool tiwaat mu ngi fi kon ñun ñi nekk ci région Kaffrine ànd ko ak suñu mbokk yi xam ne ñoo bokk deret bokk lépp bokk cosaan bokk dëkkuwaay ak waa Koungheul nañu nañu diisoo dajale suñuy am am ak ñuy moyen ak suñuy pexe ba nga xam ne place ba muy liggéeyee danañ ko setal sellal ko rey fa doomu jàngoro kër ga mu nekk ña mu nekkal ñu taxawu leen ña mu digaloon dendal ñu taxawu leen gunge ba nga xam ne diiru fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom lépp lu ñu war def pour gunge leen ba ñu yëg coono bi ñu def ko bu boobaa nag léegi gouvernement bi ci boppam la ko waral mooy gaaw indi ay moyens indi taxaw leen faj leen saytu leen ci nu mu gën gaawee parce que prise en charge précoce teel a faju teel teel ko toppatoo mooy tax du ñu àgg ci ay cas grave du ñu àgg ci ay lore àgg ci lore di kàddu Abdoulaye Wilane di maire bu Kaffrine foofee ñu daldi nemmeeku lii di coronavirus ca diwaanu Ndukumaan ginnaaw Ndukumaan ñu dem foofee ca Njaareem rawatina ca Touba niki bésu tey ji itam toll nañ ci juróom-ñaar ya nga xamante ne am nañ lii di mbas mi loolee nag bu ñu sukkandikoo ci bulletin ba nga xamante ne waa kër docteur Yafa ñoom ñoo ko daal di xamle juróom mbenn yi doon ay cas suivi kenn ki doon transmission communautaire ba tax rek niki bésu tey ji lu toll ci juróom-ñaari nit ñoo daal di amee bees loolee di mbas mi ñu nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu gu yaram ëlëm ak njàqare la ñu def ci gune yi ndaxte nemmeeku nañ ne lu dale ci weeru mars jàpp avril ba ndege si nemeeku nañ ay gune yu bëri ya nga xamante ne nag dañoo am intoxication rawatina mu bàyyi ko ci ndoxu eau de javel bi ñoo xam dañ ko naan wala am neneen nuñ ko jëfandikoo ñeneen itam lu jëm ci wàllu médicament ñoo ngi koy jël te di indi loraange ba tax rek ña ca yëngu amab njàqare di sàkku ci way wayjur ñu gën cee taxaw ñu teewlu kenn fa ñoom di professeur dem Ba baax nekk pneumopédiatre nekk point focal Covid 19 foofee ca hôpital Albert Royer ñu teewlu ko Ndeye Mariam Ndiaye. accident yooyu lu koy indi mooy ah mooy euh, le fait que ñuy bàyyi euh, xale yi euh, di jot ci produit yooyu donc produit yi ñu gis mooy eau de javel am nañu ñu toll ni fukk ñett cas eau de javel. eau de javel liquide mooy bu nekk si bouteille yi mais aussi li si gën a garaaw mooy eau de javel format grain parce que nit ñi loolu dañ ko war a tere loolu dañ ko war a tere parce que eau de javel format grain loolu kii la loolu caustique la produit bi nga xamante ni bu ko xale bi war ne rek day làkk gëmmiñ gi làkk làmmiñ bi aussi day dem ba si put bi làkk ko te léeg-léeg sax mu yegg ba si mbàkk bi ci estomac bi donc ce qui fait que te loolu après conséquences yu grave lay euh, ak euh, lekk xale bi à Euh, ak aussi à part eau de javel bi euh, gis nañ ay cas d' intoxication pétrole mooy pétrole gis nañ ci ñett cas parce que xam nga pétrole euh, kii la produit hydrocarbure hydrocarbure la te loolu dafay dafay naaw donc xale bu jotee naan si pétrole rek pétrole bi day naaw mën na ko indil ay dem de na bi donc indil ko ay pneumonie ay jafe-jafe nooy te loolu gis nañ ci vraiment ay cas te loolu day xale bi bu ñëw bu am bu jot naanee il faut ñu defal ko oxygène am en même temps aussi euh, euh, à part loolu li ñu seetlu aussi gis nañu ay produits yu mel ni euh, xeme ak aussi ay garab am na xale yu jël ay neuroleptique donc garab yi nga xamante ni ay anticonvulsivant la dañ ko utiliser pour pour épilepsie ak aussi pour garabu insomnie yooyu gis nañ ci ay xale vraiment am na au ñaari cas te loolu ak aussi ay fer ak garabu tension donc nga xamante ni pour pour adulte yi pour mag la donc xale yu ndaw yi buñ ko jotee rek loolu buñ ko naanee mun na ci indi ay ay jafe-jafe yu demee ni ba ay euh, euh, convulsion mooy xale bi di di crise ak aussi mun na nekk ci coma donc heureusement cas yu ñu jot a am euh, comme que waajur yi ñëw nañu hôpital teel nañu ñëw bon donc amuñu ci ay cas de décès. Sénégal am na centre antipoison donc bu amee benn ingestion wala benn accident xale bi bu fekkee dafa naan benn produit. produit bu muntu ak euh, soude ci centre antipoison. ci poison di kaddu professeur Idrissa dem Ba nekk pneumo-pédiatre foofee ca hôpital Albert Royer bu Ndakaaru bëri na fi mu ne nii ña nga xamante ne dañ leen waroon a opéré te mujjantil ga nag ñu daal di ko neenal loo ko waral bokk na ci ñàkkum deret ba nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofee ca banque de sang yi tax na ña fa yëngu di sàkku ci mboole seen sénégalais rawatina ña nga xamante ne ñoom ñooy faral di maye deret ñu gën a réer utali diiwaan yooye bu ko defee ñu mun a muccal ay bakkan ci lu teel li ñu teewlu ko professeur docteur Boubacar docteur Boubacar Signaté médecin urgentiste ñu teewlu ko ak maam Diarra Dassène. waaw fan yii nii moom euh, gis nañ ni euh, ñiy joxe seen deret lim bi néew na lool. te banque de sang yi. bu Dakar bu nekk centre de transfusion sanguine wala ci hôpitaux yi ak yeneen banque de sang yu nekk ci région yi. fu mu nekk nii amuñu deret bu doy. amuñu sax deret am na banque yoo xam ne amuñu amuñu deret. te loolu nekkul gulet wante fan yii nii ak feebar bi Covid 19 bi. lim bi dafa gën wàññeeku. parce que en temps normal. pour que banque yi am deret bu doy il faut que junni nit boo jël fukki ak ñaar au moins joxe seen dret loolu mooy normal bi mais avant loolu ñun amuñu woon sax normal boobu ñun ñu ngi woon ci junni boo gis juróom-ñetti nit rek moo doon joxe dret fii si Dakar ci région yi daanaka presque ñeenti nit rek ñooy joxe euh, dret lim boobu déjà dafa néewoon mais ak feebar bi ni lim bi dafa gën néew ce qui fait que banque de sang yu nekk euh, biir Dakar ak yu nekk ci région yi fu mu nekk nii dañu ñàkk dret te dañuy soxla dret bu bari pour ñoo xam ni dañuy wasin tax suñu naataangooy par exemple ñoom docteur Abdoulaye Diop gynécologue ñoo njëkk commencé di yuuxu pour que nit ñi ñëw joxe si seen deret. lan moo tax ngeen gën a soxla euh, groupe euh, O plus ak euh, groupe O moins. waaw parce que groupe yooyu ay groupe yu raar la ñu am groupe boobu ci nit ñi dafa néew te ñooñu li tax ñu soxla leen lu bëri mooy ñoom mun nañ jox ku nekk deret par exemple boo jëlee groupe O moins bi mun na joxe ku nekk deret keneen ki aussi mun na recevoir ci ku nekk direct donc loolu moo tax te ñoom seen lim ci population bi dafa néew donte yeneen groupe yi aussi am nañu solo lool mais ñaari groupe yooyu aussi am nañ seen solo ni ñu koy utiliser moo gën a ëpp solo mais nag groupe yëpp baax na il faut que ñëpp quel que soit sa groupe sanguin war nga mun a dem joxe deret war nga mun a dem joxe deret di kàddu ya nga xamante ne ñooñee ñoo ko daal di yëkkati ci fësal la nga xamante ne moom mooy ñàkkum deret ngir rek daal di wàllu ay bakkan bokk na ci kàddu yi sànq di docteur Boubacar siñaate nii nga xamante ne nguurub Sénégal jël na ko di ko yóbbee noone jàngalekat yi ci seen diiwaan yi loolee dalut xel waa CUSEMS ba tax ñu jàpp ne sax mënta ñàkk ci ñenn ci ay professeurs yi jëlee fa la nga xamante ne moom mooy mbas mi ndaxte xat-xatloo ak dajaloo bi dafa doon la nga xamante ne gën naa yomb ngir rek nit ñi mën ci amee lu jëm ci wàllu mbas moomee Abdoulaye Ndoye ñu teewlu ko xab sali man woon waaw mooy mal organisation bi manque de planification tâtonnement bi dañ ko dénoncé woon le premier jour gis nañu lu fi am terminus liberté 5 mara day taali parce que rassemblement mooy facilité contamination kon nag li fi am fii misibé la te bu mu amati mais amoon nañu yaakaar ne dinañu rek mais tey la waalo ko na aay ñu njëkk a dem mbuur toog nañu ay waxtu guddi lañ leen mujjee utal ay oto pour yóbbu leen ay njagañaaw yóbbu leen Fissel démb ñu doon dem ay Ziguinchor wala traversé bac bi dañ leen bloqué ci frontière ba ay waxtu ñu sonn fa lool démb Marsassoum am na ñoo xam ne ils ont dormi à la Belle Étoile ñu egg démb Tamba minuit lañ fa yegg sonn ñu ngi foofu am na ñoo xam ne tey ci suba bi la ñu mujjee continuer seen voyage nga xool aussi démb ñu waroon dem euh, Saraya Bandafassi Goudomp ay midi lañ fi jóge ñu sonn lool ñu ngi ci àll bi di daj lu ne donc loolu day wane ni vraiment yaa manque de coordination boo demee doo gis benn autorité yow yaay nekk Dakar fu ne nga woot autorité boo woo fu mu ne ni ils se sont barricadés loo leen wooye mënuloo leen jot dañu war a bu leen wooye ñu jot leen nelawatuñu guddi gi yëpp on passe toute la nuit à appeler boo xoolee dëkku jàmbur camp bi war nañ xam ne ni dëkku jàmbur la ñuy traverse mais état bi waroon na prévoir loolu ñoom statistiques yu ñu joxe baaxul Fatick wane na ko vingt mille ñuy wax yu war a ëpp na ko que Fatick dañu ne woon trente jàngalekat mooy jóge Dakar mais bu ñu defee le point trois cent soixante dix sept enseignants ñoo waroon dem jàngalekat yi wane nañ seen jàmbaar seen patriotisme seen engagement buur gi lépp lu am mooy responsable te lu ñu bind surtout sur le plan sanitaire matale ñu ko matalewul jàngalekat yi duñ sacrifier seen bopp di wax ne aussi jàngalekat yi dem foofu aussi dañ leen stigmatiser surtout ñu jógee Dakar mais gox yu ñu dem dañ leen di moytu parce que dañuy foog ne dañ yore jàngoro bi parce que bu ñu déggee ci rajo yi ñu ne jàngoro bi ay mag rek lay rey ne jàngoro bi day wàlle te wàlle bi dafa gaaw te ñoom ci àll bi ñoom ñu ci bëri amuñu ay masque wala feebar bi eggu ko fa mais loolu yàgg nañ ko wax kon nag loolu yëpp war nañ ko boole xoolaat mbir ñi te ñun yàgg nañ ko wax mbir yu mel nii da nga koy saytu xool ko xalaat ko balaa nga ciy Stefan ginnaaw bu ñaar fukki simili benn tegoo ci juróomi waxtu dañuy dem ba foofee ca Cap Skirring foofee niki suba bu léegi tàng na ndaxte askan wa ñoom ñooy jàmmaloog waaye takku der yi. leen waralu ko nag dañ fa bëggoon amab benn ndajeek taskatu xibaar yi ngir rek lu ñàkk ndox gu ñuy dundee ba bëndëge si loolee nag waa takku der yi jàpp ne loolee du ci dal ba tax ñuy mujj di jonante ay grenade lacrymogène ak ay xeer tax na sax am na ñenn ñi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu ñii ñu teg leen loxo salaamaaleykum benn Michel. maa ngi lay fay Birama Ndiaye waaw comme ni ko waxee euh, jaamaarloo yooyu nga xamante ni euh, ñoom ñoo am euh, tey jii ca Kapskit nekk ay jaamaarloo yu takk yu tar sax ci diggante way takk der yu gendarmerie bu brigade bu Kapskiring bi nga xamante ni sax yeneen gendarme yu jóge ci yeneen gox ñoo ñëw wàllu ci leen daanaka. Ah, jur na nag ah, ay ah, mbir yu métti maanaam yu bëre yàqu na foofu ca Cap Skirring leneen li nga xamante ni tamit nemeeku nañ ko foofu ci Cap Skirring mooy ñaari nit yi nga xamante ni ci Cap Skirring di bokk ci askan wi daal nañ leen laal mu nekk benn jeune bu Cap Skirring bi nga xamante ni dañ koo jam ci tànk ak benn ndaw soxna si nga xamante ni Euh, moom euh, ci bët euh, lañ ko laal ñaar ñooñu la nag daal dinañ leen di évacuer ci centre hospitalier régional bu Ziguinchor foofu nga xam ni ñu ngi leen di fay faj ci côté gendarme yi tamit am na ci ay tuuti gaañu gaañu waaye nag leneen li nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci mbir moom mi la coow lool am na ci tamit ay jeunes yu bëre yu Cap Skirring yi nga xamante ni gannaaw bu mbir mi dalee. Euh, gendarmerie dañoo daal di dem euh, jàpp ñi nga xamante ni ñooy jeunes yu capturé yi boole ci sax euh, ñi nga xamante ni ñooy responsable yi naroon amal point de presse bi foofu ca capturé fu mu nekk nii nag ñu ngi leen di téye ca brigade gendarmerie bu capturé te bo ba moytuwul ñooñu le daañu leen defeere gannaaw coow li nga xamante ni am na tey te coow mu nekk coow lu tàng ca capturé ñu fàttali ni nag li waral coow loolu mooy maanaam Ah, benn ah, jano ak taskatu xabaar yi nga xamante ni askan wi yeewoo ca Cap Skirring bëggoon nañ ko amal ci ah, la gendarmerie leen du ci dal ba ñu daal di leen sox ay grenade lacrymogène naka noonu nag mbir mi daal di dégénéré wu ba ñu mujjee ci ay échange sànniyante xeer ak ay grenade lacrymogène ci diggante askan wi yeewoo ca Cap Skirring ak gendarme yu nekk ca Cap Cap Skirring nag nekk benn Euh, cité euh, balnéaire bi nga xamante ni euh, moom mooy zone bi nga xamante ni moo yore koomu Ziguinchor ci wàllum tourisme Cap Skirring nag depuis atum 1972 bi nga xamante ni boobu la ñu sànc tund woowile ba léegi amul ndox te askan wi li ni mel la ñu mënul a dëgg ndaxte ñoom nee nañu ci Cap Skirring ci zone tund yooyu nga xamante ni ñoo wër Cap Skirring ñoom ñëpp daanaka am nañu ay forage ba mu des Cap Skirring te foofule Euh, am na ay hôtel yi nga xamante ni ñoom daal dinañuy am ay forage te itamit euh, benn usine bi nga xamante ni day defar wàllum ndox foofu la implanté wu ñoom nee nañu euh, naka la li ni mel yëpp mën am Cap Skirring te ak kan fay yeewoo di gën di dundee ci coono di jafe-jafe ci wàllum ndox Birama Ndiaye. Michel. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS mooy taxaw ci wetu ministère de la santé ngir lii di coronavirus bañ a law ci biir réew mi alliance nationale des communauté pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS di ñaax mboole sem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu sàlloog dogal yi nga xam ne waa kër docteur jox nañu leen ko ak ministère de la santé mu di ngeen di raxas seeni loxo ba mu set ak ndox ak saabu ak jëfandikoo gel hydroalcoolique bu ngeen di sëqat ngeen jël mouchoir te bu ngeen ci noppee ngeen sànni ko ci pollu mbalit wala ngeen lem seen conc loxo ngir sëqat ci biir bu leen joxe loxo te it dee leen moytu lii di dajaloo ay mbooloo bu ngeen yëgee lu ngeen miinul seen yaram lu mel ni coono ci yi sëqat ak yaram bu tàng ngeen woote ci 800 00 50 50 te du ngeen ci fay dara. l'expertise communautaire au service de la santé. ANCS, communautaire au service de la santé. Alliance nationale des communauté pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS moo leen di may wax sa xalaat. wax sa xalaat ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 825 18 30. tey nag kenn tënku leen ci ponk lu ñu sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen lab leble fi bor. amaana dàqum ginnaaw la xaar la sa soxla salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa ko Baye Cheikh. waaw ñu ngi lay siyaar Baye Ibrahima Ndiaye. Diop waay. ñu ngi lay siyaar di la barki di la baal ci weeru koor gi di gën ndax naa bu laa de jotee ci wul fi. <laughs> baal nañ la baax a baax rek. baal nañ la di wax uh, tey jii moom maanaam comme la may wax rek maanaam dañu fàttali maanaam nit ñi rek mooy coronavirus bi yi nga xam ne tey jii moo lëmbe adduna bi maanaam nit ñi ñaan comme ni fi weeru koor yi jógee. coronavirus bi jóge fi ndax tey ji boo ko seetee tey ji état bi na jël ay mesures ci li nga xam ne tey ji mooy li nga xam ne ñu bëgg a wubbi gannaawaate suba xumal la la de maanaam ñu jellu ci classe bi enseignant yi jellu ci classe bi noonu mu ko defee ci enseignant yi ndax ko defee ci maanaam baykat yi ak euh, transport beeg leneen léeg ndax kay baykat yi kat fi ndoolu kat tey ji nawet yi bëgg a def de te baykat yu bare bare bare dañoo naara doon ci affaire bi kon na la bi dugg réew mi ka nga dugg fa ne ñu jaajëfal ko moom euh, Baye Cheikh Diop daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 825 18 30 tey kan cënku leen ci ponk asalaamaaleykum. maaleykum salaam asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Alxaaji Burahama Ndiaye. Malick Cissé. waaw nuyu naa la nuyu sama xarit Alaaji. Jibril seen borom xam-xam bu sell bi nga xam ne moom kenn du ko dindi di nuyu sama aajo bool bool jërëjëf jaar yow moom ku ci nekk Papa Laye wala Alassane. Alassane. Alassane na ko maa ngi ko nuyu bu baax mais euh, ña bu jaaxma. Mhm, Malick. xam xam xam nga pale nga ak ndaraan ak ak suuf. Hmm? Ah, xam xam nga ndaraan ndaraan xam nga ndaraan yow ndaraan. ndaraan mooy oto boobu di yàqati noonu. déedéet machine bi ci lay nekk mooy mooy mooy bu machine bi di nekk ci ginnaaw noonu di di di di di far affaire bu machine bi. maanaam machine ji machine ji. ah ok ok waaw waaw waaw. loolu mooy moom la ñu am raam. waaw waaw waaw dama ko déglu woon bu baax waaw. d' xam nga xam nga palañ xam nga xam nga ak suuf. Mm-hmm. suuf xam nga suuf muy muy muy yi nga takk nag yi nag pour ñaar nag yi pour ñëpp machine ji. waaw. Birama yaqit lillahi wa rasuli Birama Ndiaye. Mm. ministre de l' intérieur ak monsieur président la République monsieur Macky Sall. monsieur Macky Sall président la République nga xam ne nga xam ne baatam kenn du ko dindi dañ ko ñaan lillahi wa rasuli ñun béykat nañu dimbali ñu dem suñu tool Ibrahima Ndiaye mhm. ñun suñ boo yaa ngi ciy nekk bu dee te Ibrahima ku ne xam ne fii weer fii weer Ibrahima nit balaa ngaa bay da ngay ruuj dajji dëkk ci bu xaar gañ jot na ruuj non Ibrahima Ndiaye lillahi dama ñaan monsieur Macky Sall monsieur bu dee dugub bi sax am nañu commencé di waaw Ibrahima waaw Ibrahima même balaa sama temps bi rek monsieur président de la république alxaaji Macky Sall nga xamante ni yaa ko Sénégal ba Sénégal daj yaa moom ñi maanaam yaa jiitu sa baat moo jaar ñëpp sa kaw man maa la ci nit na faq lillahi wa rasuli maa ñaan ñun béykat yi nga bañ ñu dem suñu tool yi Birama Ndiaye la république bu fekk yaa ma sa Birama Ndiaye mhm. lillahi wa rasuli sufóor yi si àll yi Birama nañ leen dimbale ngir yàlla yonente bi dañ leen koy ñaan Birama sufóor yi soxla nañu sufóor yaa ngi ñu jaajëfal ko moom Malick Cissé foofee ca Medina Parqa ñu daldi di jël keneen salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Birama Ndiaye. aha. Bàcc ci Kër Madaar. Kër Madaar waa Bàcc. maa ngi lay nuyu ak si mbokk ak mbay la ak technicien. Mhm, jërëjëf. di ziar njabootu jël xaaj Malick di leen ñaanal jàmm. amiin. Euh, Birama. aha Bàcc. damay fàttaliwaat euh, am na sànq fu ngeen invité mhm. dama koy ni ministre euh, de la santé. moom la ñu tabb maanaam faluñu ko sax dañ koo tabb pour mu doxal wàllu santé man yaakaar naa ne su demee ba nga xamante ni mënatu ko yaakaar naa Macky Sall moom du xaar kenn di ko wax naan ko jëli ko fa du ko da ko man nag ministre de la santé taxawaayam ak taxawaayu médecin yi man maa ngi koy rafet rafetlu parce que dafa métti. Mhm. li commencé ci docteur bi gën a mag ba ki yore balankaar yi ñu ngi leen di sant leen gërëm. beneen bi damay wax président de la république ni ko nit ñi nga xamante ni ñu ngi jàmbat ni dañoo bëgg a loolu la amee ay mécanicien ki ay tailleur ki ay boulanger ay ñeneen ñu ne ci àll bi ñoo tamit bëgg a dem léegi daal xam nga man la ma ci xam ma biraam mhm. ruujkat yi kenn mënu leen a xam Malick moo mu di wax bu mënoo ko wan ne amul benn carte bu lay wan ne ab baykat la man ñi tamit gasaali ko noonu mhm. kon nag nañu li ma li ma xam xam ko kay mooy ba ab diir ñu ne ku bëgg a dem fa nga bëgg a dem dem fa kay waaye nag nañ tànn ñi bàyyi am na ñeneen ñu nekk ci àll bi te mënuñoo dem loolu problème la mhm. beneen di euh, biraam damay wax ci problème mu chauffeur yi li ma ci li ma ci doon wax du varié du varié de. Mhm. mooy danoo sonn état man su doon man la te mu déggal ma du naan ay waa Dakar daw leen waa Ndar déedéet na bàyyi yëpp ñu daw parce que nag toogaay bi metti na te tamit yëf yi ta taar na kenn mënu ko werante waaye nag bu ñu nee feebar bi Thiès ak Touba feebar dafa am moo tax ñu ne bu may ñu la ñu circulé département ak département waaye Dakar la ëppee épicentre épicentre mooy foo xamante ni feebar ba dafa dafa dafa diggu nga bàyyi ñëpp ñu circulé kon nag Thiès ak Touba ak fépp waaye nag man malheureusement wala transport biraama daa am lu ma ci gis hmm. amul solidarité amul ànd gis nga bañ départ ñu ne na Dakar doo ko daw ñu ne hmm. Bàcc Cissé ñu daal di jël keneen ci ligne bi ci 88 lay doon 628 98 98 bi ci réew 33 825 18 30 asalaamaaleykum 88 lay doon 628 98 98. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sang bi ñoo ngi lay ziar. delloo ziar. Ibrahima Ndiaye Pikine Guinaw Rail mooy nuyoo. ñoo ngi lay fay Ndiaye. ñoo ngi santaat sunu borom bi tabaraka wa di julli ci Seydouna Mohamed alayhi salaatu salaam. Mhm. di ziar sëñ Abdou Karim Mbacke ak sama Amadou Rafal Mbacke di baalu àq ñëpp nag di baalu àq ñëpp di wax mhm. yàlla na yàlla boole mhm. jàngoor ji wàttiiroo a bokk na bi ci njëkk euh, booy dugg Kaolack am na daara ju mag ju fa nekk yoo xam ne ci alxuraan rek la yëgu bi ñu bi ma defee sama enquête ba laajte dañ ne euh, Amadou Mbaye Maodo moo ko fa taxawaloon te ji ak njaboot ak njabootam ñoo fa nekk. jege hmm. itam nag Alaaji Dam Njaay di nga ay am na mufti yu mag yoo xam ne génn nañ ci daara jooju ñun loolu lañ soxla mu yaatu ci réew mi. boo ma wax nañ dimbali ñu jàngal waa ko rawata daara ko man daara jooju xalaatuma noonu am na foofu. Hmm. mais kilifa ku baax moo ma wax ne ma daara jooju. Amadou Mbaye Maodo moo ko fa taxoon tey ji ak la ñuy damoo loolu la may ñaan kon képp ku di jullit booy dugg Kaolack sa côté càmmoñ daara nga fa joxaan alxuraan dong lañ fa nekkee nañ leen gees leen dimbale nga xam ne bii ne daara dañu ko tey busra tudd kon may ñaan ku jullit na fa dugal loo xam dimbale te yàlla tax bi ci des moom sëñ yaa ngi dégg mhm, yow lay teelu waaw bi ci des ak mooy xale bu jigéen bi ñu ràngu lu ko waaye wax tooñ ko tey moom dana nekk avocat am neemul tax. Hmm, lu tax. lu tax ñoom ay loi quatre-vingt-quinze musulman ne ci dëkk bi xale bi nag jëf ci ñaaw ji mu di burkina mu ñëm ñëpp teg seen bët kenn ñëw ko dellu julee la ba bi man jàpp naa am na xale bu ñu wax biisu ngoone fii la taxu ñu witu ko ci télé ba léegi mi ngi def ay ay ay ay émission bi ilimaan yëpp nañu lem seen gën toog babar ne moo leen gën a nekk ilimaan moo leen daq a jàng kenn ñëw ko dellu julee la waaye mais dama ne dafa mel ne Sénégal gi moom def katu lu bon ak jigéen ñu bon ñi ñoo yilif réew mi leen neex def biisu ngoone fu ñu rangu war nañu faa jàppe biisu ngoone lu toll ilimaan ngeen nañ seen kenn toog ci dégguma ba tey kenn téyeku barke Muhammad Rasulullah salaam sëñ waaw. Ndiaye na ngeen def Ibrahima Diagne moo lay woo fii ci France. Diagne waaw. na ngeen def waay. ñoo ngi sant alhamdulilah Diagne. ne laa ñu ngi nuyu Oustaz Alioune Sall ak. Euh, Oustaz Mbacke Oustaz. waaw ak Mbacke Sylla ak. Euh, ah, Oustaz Alioune Mbaye waaw ñu ngi leen di nuyu ba pare di wax nag. ñu ngi def suñu bopp yi. Mhm. tukkikat yi nga xam ne ñu ngi kale ci réew mi vraiment ñu ngi waxal sa force waaye ñoom it war nañ leen waxal de. ndaxte bari nañ lool ci réew mi te itam yaakaaruñ ne may seen tukki bi amatuñ fuñ liggéey ñi seen i seeni i marché yi seen ci taxaw ñu ngi nangam nangam te itam surtout ñu ne Espagne ñoom ñoo gën a ñoo gën a métti la yëpp ndax France sax ñu ngi góorgóorlu di dugg ak génn waaye itam ministère bi nga xam ne moo féeteeg ñoom na leen waxal waay na leen jàppale na leen jàppale pour ñu mën a dellu si seen liggéey baax na ci lool mm-hmm. chauffeur yi itam ñu jàppale leen réew mi daal xam naa kale na fépp àddina bépp kale waaye coronavirus bi yàlla na ko fi yàlla jëlee. ndax ndaxte daal xam naa ni daal li mu yàq. ah xam naa moo ëpp li mu defar na waaye nag ndaw lu yàlla yónni la waaye nag ñu itam gouvernement yi nañu yërëm nit ñi. Hmm. di xool ndax fii ci France. bu nekk ci àll bi te war a ñëw rek daañu def si étal fooy jaar ba nga ñëw. te itam dafa mel na ñoom ñoom. Eh, yooyu ñu ñëw ak ñëw ñu leen koy jaay tuple boo xam ne maar dañu la ndax mënatuñoo ñii dañuy wax ñetti weer ñoom ñoo xam ne ñu nga fa woon décembre ba léegi mënuñu ñëw nag ñaata weer la. Hmm. dégg naa ñu ca ñu ca manifester ca Touba soxna si Dieng nu mu tuddati sax. Adja Soda Dieng. waaw Adja Soda Dieng yàlla na yàlla guddal fanam ma ngi hmm. waxal ñëpp macha allah. Hmm. ma ngi waxal chauffeur si ma ngi waxal immigré yi. waaye sonn nañu wax dëgg yàlla de ku leen jàppale ñu jël. ku leen jàppale ñu jël ñun ñu nekk fii. te daan dund ñoom te yàlla dogal nekk fii xam nañ ñun nekk te fii yaa ngi dem lu léegi ñoo ngi liggéey ndànk ndànk wax dëgg yàlla macha allah. Mhm. jërëjëf Ibrahima Diagne woote foofee ca France ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. aha sëñ bi. Birame da ngay ziar fii ci Mbour aha noo tudd.

waaw loolu paase nag ñi wax ci xam ne diggante euh, transporté ñu ngi leen di masoo seen coono bu baax. Mm-hmm. te di na nag bu fekkee am mën na ñun am nañu mbokk yoo xam ne ñu ngi di toujours taxi depuis 23 depuis avant président jël dogalam. Mm-hmm. ñu ngi bëgg a ñibbi ca Kajoor mënuñoo ñu kon ak yow ba ci amee rek dañuy dañuy sant nag bu baax. bu mm-hmm. ñu tëjee jéggi. jërëjëf. jërëjëf moom moom mooy wootee ca Mbour Sud FM kilifa yaa ngi ci di ko li ngeen xam naa fii lekk ñaar wala ñetti fan lépp dina yembaat incha allah ñu jël keneen asalaamaaleykum. waaleykum salaam. aha sëñ bi. maa ngi euh, ziar maa ngi wootee Allemagne maa ngi tudd Amadou Guèye. Amadou Guèye waaw. man dama doon interpeller euh, le le la monsieur Alioune Sarr bu nekk euh, maire Noto Ndiobass. Noto waaw. waaw ci 43 hectares yi nga xam ne daf ko octroyé daf ko joxoon waa CAC euh, Renaissance euh, euh, les victimes de de la CAC Renaissance alors ba léegi jotuñ ci. Hmm. moo tax mu di ko interpellé pour ku wax wax ne ko mu jox ñu suñuy terrain. waaw 43 ectares yoo xam ne ñu dañ ko fay ñu ngi ci diaspora bi yëpp actuellement dañ formé association waa France waa Italie waa Allemagne. Hmm. ba États-Unis parce que ñun on va porter plainte à monsieur Solomon Boucho. waaw fii parce que il a la nationalité française waaw ñu ngi woon nag Aliou Sarr mu jox ñu suñ 43 hectares yi nga xam ne daf ñu ko euh, yorel waaw te mu recevoir monsieur Ramos euh, suñ président coopérative bi nekk foofu Dakar. Hmm. waaw ñun daal ñu ngi fii dajaloon nañ fi mu nii pare nañ xeex bi nañ ko xeex bi en Allemagne en Europe xeex au Sénégal te teg ko ci yoon. incha allah parce que suñ ñàkk la suñ alal la ñoo ko jënd ñoo ko liggéey. te sonn nañ. ça fait douze ans ñu ngi daw xam nga ñaata at ñu ngi daw waaw mu dimbali ñu maa ngi sant leen gërëm. jërëjëf Gaye Amadou Gaye woote foofu ca Allemagne ñu jël keneen biti réew 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. nee na ça va bien. sant alhamdulilah. donc ci ñaari mbir. premièrement. directeur général du national. bu yeggee ci fay ay milliards yu muy jële ci gafa askan bi. ci waxtu bu mu àndatul ak plein pouvoir comme ci veyu bés bi mu war a weccante lenge ak suñ fal bees pour mu wutu ko ci bopp boobu war na leer ne mbiru fóot laxasu na pour wane rek ne contrat bi directeur général u Senelec signé ak Akilee ci deal la lalu d'autant que marché boobu amul appel d'offre préalable te kon jaarul yoon bu dalal xel ci intérêt askan bi ndax bu ci diil amuloon manœuvre frauduleuse boobu du ci feeñ mukk deuxièmement président honoraire conseil économique social et environnemental hmm. ndegem amul taxawaayu kilifa buy doxal boobu institution àndul ak solo bu mën a jural askan bi jëriñ ci yëngu-yëngoom sinon yokk dépensé alalu askan bi donc ensuite nommé chef de l'opposition man gis naa ne moo ko ëpp solo ci réew mi te président de la république defu ko ngir li mu dul intérim te loolu ci biir yëngu-yëngoom day firndeel ne intérêt généralu askan bi tegagu ko kawe priorité muy lu jaaduwul ndegem xam nañ xel ne autorité boobu day dooleel démocratie ci doxin ak doxalinu Sénégal ci ngëneel donc nay sàmm intérêt général u bi di ko jiital ci ay décision jërëjëf jërëjëf Mouhamadou Moustapha di almahdi woote foofee ca Kaolack ñu jël keneen ci liñ bi asalaamaaleykum waaleykum salaam si naa Bravo aha Gora Fall waa Jurbel gépp ñu ngi fi ñu ngi jàmm baax ndax dafa yàgg féer amiin amiin siyaar ba daara Diop si ba teg ak Waly Ndiaye Ndiirène di wax ni ah, Birama mhm. oh, yëf yi tar na metti na euh, wax dëgg yàlla président def na effort yu bare bare bare bëri sac ak sacrifice ministère euh, bi itam naka noonu laa Diouf Sarr allah jàmbaar la waaye nag fi nekk nii fi ñu nii euh, mhm. Birama mhm. askan yi moom tënkee ko daal lañ gën a bëgg lu ñu mën a am moo leen ko gën a loolu moom na ko président xamee noonu tey it eh, yëf yi moom li tax mu taux bi yegg fi mu yegg dakaar moom du lenn lu dul li xeex bi di tar tar tar daa mel ne dakaar moom dañ leen a xaw a mbaa yàlla ci yëf hmm. waaw te yëf yi moom amul xaaj ak seen comme nag askan wi ñoo def ba toll ci gisuñu lu dul euh, ñu bàyyi leen ñu dox seen i soxla hmm. euh, jàppatuñu nii président Macky Sall moo moo euh, feebar bee tey dañoo jàpp ñu ci ëpp fi mu ne dañoo jàpp ni président moo leen téye Euh, deful lenn lu dul fexe ñu mucc. Hmm. wér nag moo gën leneen lu dul wér ndax boo amee ñaari soxla rek dañ ni da wér boo xesee wér wér rek ngay bëgg comme nag askan wi moom euh, xeex bi xëy na moo réussir ci côté ba ñu bari dañ naa gisuñu ko feebar wala dégguñu ko feebar wala nangam nangam bu nëgë ni fekkoon feebar bi ni wasaar ci dëkk bi kon du demee nii kon du toll fu ñu naa dañ koy politique yi politique yi feebar bi ban intérêt la am man loolu laa xamul. comme nag askan wi dem nañ ba fi mu loo wax ñu ni président daa war a am yërmande ci askan wi te yërmande tax li mu neñ mu nekk li état bi par jour mu di ko perte man daal li ma gis mooy ñu bàyyi ñëpp ñu dem comme ndax man Dakar la ñu may leen liberté ñuy def ñuy dugalante dañ ko defee fii ci Bawal ak ak Thiès ak fépp ni ñu ko defee ci yeneen département yi noonu daal laa ko gisee ñu bàyyi hmm. ñëpp ñu libre dem doxi seen i soxla ku ku ñu mën a faj soo feebaree ñu faj la ku ñu ku mu jël ñoo xam ne loolu la yàlla dogal noonu laa ko gisee de Birama mm-hmm. sinon euh, metti na fépp de mm-hmm. amul benn euh, secteur boo xam ne moo gën a euh, yomb ci ñoom ba ca des nit ñi di dem kati luuma baykat yi gënuñu noo sonn mm-hmm. transporteur yeeg électricien yeeg mécanicien yeeg tailleur yeeg ñëpp kenn ku ci ne commerçant yeeg kenn am na ci bari ñoo xam ne ñu nga lonk xaw ñu lonk wasalaam jërëjëf Gora Baye Fall woote foofee ca Kër Sega ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ibrahima maa ngi lay ziar. delloo ziar kooku. Massène Sène. Massène Sène wootee fan. commune bu Gaawaan. commune bu. Gaawaan Gaawaan waaw acca bisimilah. village Nja village Njaarga aha bisimilah. maa ngi lay ziar naka yitee. sant alhamdulilah. waaw Ibrahima man si nii damaa xaw a jaaxal ci affaire bi. lan moo la jaaxal. ah maanaam yoon yi bi ñu ko tëjee léegi maanam ci ñaata weer la toll fi mu nekk nii. waaw. léegi maanaam bi ñu koy tëj am na ñoo xam ne ñu ngi nekkoon fii di liggéey di yónnee seen i waajur ñu ngi ñibbi seen dëkk fi mu nekk nii toog jàppal ne affaire bi du mm-hmm. ñu ngi toog ñoo yor seen i waajur di liggéey di leen yóbbu nañ ci seen i wet dematul fenn. Mm-hmm. la xam ne moom la ñu yoroon mu ak juróom yi leen war koy jaay ci marché yi léegi daanaka département rek ñoo fay rajo. ñu war a jënd lan doon jaay ñenn ñu ngi doon jóge Ndakaaru ñenn ñu koy jóge Daara ñu jóge feneen daanaka boo fa yóbboo ko jël ndax ko jël ba nga nekk am feneen fi nga ko jaayee hmm. affaire war nañu koo xoolaat de hmm. waaw métti na ci ñun lool lool lool jamono bi nag léegi ni muy doxee ñu nekk ci jàmm di ñu nekk ci jàmm ñun ñuy sonn dañuy gën a sonn rek hmm. te suñu borom nag waxul loolu ñu tane ñu dañoo war a dimbali ñi nga xam ne ñoo leen tane ndax loolu tax yàlla jaar na ci ñu wërsëg woowu waaye nag fi mu nii doon waar lool lool lool ba jéggi da te aar boo xalaatee ne day gën a woyof muy gën a tar mm-hmm. wala ñoom bëgg a tukkal àdduna bi nag fi mu nekkee ëpp naa am aha Massène ñu jaajëfal ko moom Massène seen woote foofee ca commune bu Gaayaan ñu jël gaawaan ñu jël keneen asalaamaaleykum waaleykum salaam aha sëñ bi sëñ waaw kooku Ali Cissé aha Ali waaw waaw ñu ngi nuyu di siyaare bu baax. delloo ziar. di wax ne feebar bi de. Mhm. nit ñi dañoo sonn si tëju bi. Mm. yow gouvernement bi lépp lu mu waxoon askan wi def nañ ko nee na toog leen toog nañ tëju leen tëju nañ waxoon na jox leen ay milliards danaa def aide élémentaire maanaam jënd ceeb ak diwlin ak suukar joxe. mais ba léegi nii Cheikh Ibrahima mënoon daje ku ne xam naa ko am liibar ceeb wala kilo suukar amagul. léegi nag ñun béykat yi ñi nga hmm. xamante ni ñu ngi tëj dëkk bi ne kenn dem dama jàpp ne képp koo xam ne ruujuloo doo mën a béy hmm. te état bii nii nii ñu tëjee dëkk bi niñ mënuñuy dem noonu lañ tëjee luuma yi te te itam luuma yi daf daa représenté lu bëree bëri ci mbay mi ndax ndaxte am na am na ñoo xam ne seen machine yi dafa paanoon am na lu ñu yàqule woon dañ ko war a defar hmm. te luuma ba lañ koy defaree machine suude yi ñëw suude ko ñi nga xamante ni seen i fas ci na demoon na dee wala ñu sàcc ko seen i nag après dañuy dem si garage daal di jënd fas wala nag daal di préparer pour nawet bi. Mhm. léegi yo yëpp bu bu fekkee ne amul moom daanaka moom booba ren moom bu yàlla ji tey nañ xam ne mbay moom du am. waaw léegi nag ñun béykat ba booba yow loo xam ne soo béyee duñ ko jënd duñ la jox bu baax duñ la jox engrais bu baax loolu moom wax dëgg yàlla nii buñ soxlaa tey dañuy tëj ci bañ ñuy bàyyi. léegi nag am ñu jox ay kayit guddeeg bëccëg subaa ngoon ñu ngi dem seen liggéeyukaay ñun nag suñu tool yi mooy suñu te léegi Saalum ngay dox téeméeri dëkk yoo xam ne doo gis benn lamp buy tàkk. Hmm. du lamp buy tàkk courant amu fa ndox amu fa yoon dafa pomp yi amu fa lakk ñun bu amee ñoo koy fayal suñu bopp suñ jur gi ñu ngi koy sàcc ba tey ñu ci dara suñ gerte gi bi ñu koy bawoo bu nawet bàcc kenn du ko jënd. Hmm. léegi nag ñu koy dund ay at at gouvernement bi ne fi ak bi bawoo ko depuis soixante ans ñun loolu la ñuy dund. waaw léegi nag li ñu doon wax président de la République daal nañu may ngir yàlla ak yonent bi ñu bëgg a bay na bàyyi. ñu dem bay am na ñu ne nag léegi ñu bëgg a bay moo leen a xàmme moo leen a xàmme léegi ñëpp dañ ci sa ndox kon na bàyyi yoon bi une semaine bu bu fekkee bàyyi yoon mhm. mu bàyyi yoon bi une semaine ku nekk dem fi mu waroon dem Ali Cissé salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Mr Birima. Chérif. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala allah azza aar adduna bi yëpp nga permettre ma vous me permettez ma jaale Mr Medor waa ju baax yal na yàlla aar xaare aljanna waa juróom bi génn àdduna xaare ko aljanna firdaws te yéexee ñëw hmm. mais Mr ma man man man Sénégal bi ma juddoo ma yaroo fa man xàmmeetuma Sénégal hmm. franchement xàmmeetuma Sénégal mais li may dégg ci suma réew mais ay nit ñu feebar ñu leen di taw ay nit ñu dee ñu war leen suul ñu ne kenn du leen suul parce que dañoo feebar man xàmmeetuma ban senegal lañu nekk franchement parler man tiit naa we going straight to the ditch ci biir kàmb gi lañu ñu jëmi te suñu kilifa yi xamuñu sax ñi ngi jëmi ci biir kàmb gi mais lii dafa doy waar réew moo xam ne dañu ne ay jullit ak chrétien dañu yar ci diine islam dañu yar ci diine chrétien ñu ne ay néew kenn du leen suul parce que dañu feebar sa mbokk génn hôpital daw nga koy nga koy daw ni ko koo xam ni kii mais je ne sais pas ni dafa feebar mais come man man jaaxal naa lii Sénégal la non nañ ñu dellu ñu yaraat ñu diine ji ñuy bàkkoo du diine islaam bii ma xam du diine islaam ndax islaam socialisation la xam ak probité ak moralité te li jegewul sax lu ñu di dund man wër naa réewu adduna bi yépp ni ñuy yaree seen xale yi ci ci ci ñi nga xam lu xam adduna lañ leen di njëkk yare ci xam adduna te duñu daw ku feebar ñu daw nit ku ñuy dee ku ñuy suul même boo feebaree waaye dañu leen dellu ñu yaraat ñu waay suñu kilifa yi ñu jóg ñu réformer suñu pédagogie bi ñuy yaree diine jàngal la lislaam ngay tari alquran bi ba mu jeex te xamoo lan la alquran wax ngay tari li mu jeex xamoo li Cheikh Ahmadou Bamba doon dund nañu pédagogiquement nañu dem ñu yaraat ñu lii du lislaam waay ah mais vraiment franchement ñun ñi ci biir kàmb gi la ñu jëm yi nañ leen delloo ci suñu xel. Hmm. li ñuy wax ni yëpp ay faux problème la ay defaral ñu oto defaral ñu autoroute du ñu dem fenn tant que yaruñ ñu du ñu dem fenn nañ leen dellu si nañ leen dem ci école yi ñu former daara yi jox leen pédagogie encore ñu former comme chrétiens yi tamit gis nañ ñu ci bari ñoom ñu fenn ci école yi ni ñu leen di yaree. jullit ñu bare am na ñoo xam ne ki tam ni ñuy yaree pédagogiquement gis fu ñuy jaar nañu dellu ñu jël pédagogie yooyu ñu def ko suñu école yi. jërëjëf Chérif woote foofee ca États-Unis ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. 88 628 98 98 biti réew 33 825 18 30 asalaamaaleykum salaam wa waaw sang bi ñu ngi siyaare de. delloo ziar noo tudd fooy woote. Serigne Gueye laa tudd dëkk fii ci Mbacke Bawol. Serigne wàññil rajo boobu. waaw. ah ana mbokk yi alhamdulilah. mbokk yi yëpp a ngi fi. acca bisimilah. maanaam fi mu mhm. ñëpp dañoo war a soppiku. te mm. te ji ni mu tëralee mbiram. nga war xam ne rek. yàlla dong mooy buur. Mm-hmm. ndax jàngoro ji xameewul ministère ak manee mm-hmm. kon képp ko fi nekk te nekkoo ci jub nekkoo ci lu baax. jéem woo jàmm ci sunu borom xanaa nekk ci sa bëgg-bëgg àdduna ba yàlla di la xarit ci lii da nga xam ne yàlla buur la. Mm-hmm. jàngoro ji li koy li ci musal nit ñi jagam amuñu lu ñu ko faje nañu sol ay masque tey toog ci benn place. bañ a deman ci mbooloo bari wala yooyu jàngoro ji moom xàmmeewul ponkal ak ku tuuti xàmmeewul góor ak jigéen hmm. xàmmeewul mag ak ndaw kon képp ku fi nekk soo boo ngay ñaan ci yàlla mi nga xam ne moo ci mën a musle mu musal la waaye nekk ci say bëgg-bëgg bam ni la taral ngay lor nit ñi defe ni yaa ne boo boo faree surux na dëgg pare jërëjëfati jërëjëf Serigne Gueye woote foofee ca Mbacke Bawol ñu daal di jël keneen ci liñ bi asalaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam Birama. waaw maa ngi lay ziar man la Omar Ndiaye may di woote Espagne. delloo ziar Ndiaye. yàlla na yàlla nangu ziar. waaw Birama man de man xanaa di bëgg a wax ci réew mi rek. waaw. pour que ni gouvernement bi. Mhm. ñuy dimbali néew di doole yi. des fois da ngay gis ñoo xamante ni sama waay dañuy nekk ci gouvernement bi nekk fa ay ati ati ati ati at ñu leen di jël di leen dugalaat ci jox yeneen i poste di leen joxaat yeneen i fonction mais am na ay booy yoo xamante ni sama dañoo jàng ba ne ar nekk senegal ñoo fa ëpp jàng ba yëy seen mais kenn du ci am palte kenn du ci am place loolu dafa bari senegal te ay ñoo xamante ni sama waay tey jii am nañu moom mën nañ leen a dimbali mën nañ leen jàppale mais ku retraité nañ la jël teg la de côté nga xam ni retraité nga am am na ñoo xamante ni tey jii mën nañoo jël place yooyu mën nañoo jël fonction yooyu nañ leen jàppale nañu xool ci néew di doole yi tamit ndaxte tamit xam nga am na loo xamante ni tamit xel nanguwu ko foog ñu jàppale ñooñu bu xale yi nga xamante ni dañuy jàng ba ne ak génn université yor seen i diplôme yor xam nga foo déposé say CV wala say dara kenn du la jël. Hmm. kenn du la toppatoo. xam nga boo amul branlo wala nga am koo xamante nii sama waaye xam nga mën na laa jàppale nekk ci nguur gee affaire yooyu doo liggéey doo xëy loolu dafa metti dafa metti xoola carrière yi jàng nu mu méttee xam nga année yi ngay def lépp ci école xam nga di réviser lu nekk nga dugg ci sa yaay di toppatoo sa papa di toppatoo sonn ci yow nga dem ba boor a mën a ut benn place bu la mën a teg sama waay fu nekk nga déposé fa fu nekk nga dem fa kenn xool kenn du xool say dossier loolu dafa metti dafa metti loolu rek rey na doom nit rey na nit nañ leen jàppale nañ leen jàppale ñi nekk ci gouvernement bi ku ci retraité wala nga xamante nii sa liggéey jeex na nañ la teg de côté cumul de fonction yi nii def tamit nañ ko bàyyi mm-hmm. jërëjëf Umar Ndiaye wootee ca Espagne ci moom la ñu yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen ci kanam tuuti xaddi seen ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français gërëm bu baax Alassane Wade mi féete woon ci xarala gi jàmm ak jàmm ba ci kanam incha allah. Birama Ndiaye.